Ah, loolu c'est di Sonko nag dëgg si yàlla xam nga nag euh, yàlla moo bëgg dëgg. man parfois damay wax semence moom dama naan yàlla moo bëgg dëgg xam nga tax ma naan yàlla moo bëgg dëgg mooy xam nga dafa am nenu baxal waaye ku gis nen. tamit nga ne nen a ngi nii. sëñ bi xam nga man damay yëngu si événement soo bëggee organiser concert tu vas prendre six mois. nit dof mu ngi organiser concert am. depuis six mois. mu ngi ci bind mu ngi ciy communiquer mu ngi def publicité soo bëggee def ngénte da toog une semaine n'est-ce pas. Hmm. mais Ousmane Sonko rek la yàlla may waxul waajalul génn ne damaa woote meeting gannaaw suba kuy ñëw na nga fay. trois jours la ko annoncé. depuis ce matin dix heures booy fees fa dell ba vingt heures il tient na leen tout le monde. ça yàlla moo ko may. c'est du Ousmane Sonko quoi. voilà ça c'est c'est c'est c'est lui et ce qui est inédit pour man aw ah, fekkeewu ma ko te gisuma ko ko fekkee meeting politique boo xam ne pour nga ñëw dem ci meeting bi da ngay fay loolu Sonko rek ko am de c'est-à-dire dafa dafa dafa dépasser benn benn il est un peu il est en avance sur les sur sur les autres c'est-à-dire et loolu nag force boobu yàlla moo ko may. c'est-à-dire booy analyser da ngay commencer keroog sur sa sortie. Oui. une sorti millimétrée calculée voilà quelqu'un boo xam ni il gère son agenda de communication et li si extraordinaire mooy quand Sonko parle il fait parle que tu sois avec lui que tu ne sois pas avec lui il faut que Sonko soit au centre mbër bu nekk da nga am sa point fort Sonko son point fort c'est la communication parce qu'il a un bon leadership un bon leader dafa am ñett yu koy tënk mooy la compétence mooy la connaissance mais mm. surtout la communication donc Sonko li wolof naan li nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyi de jig na la kon moom la mu jàppoon ba am lii bàyyiwu ko bàyyiwu ko gars yi daf ko millimétré calculer ko parce que dañ doon xaar ñu ne investir nañ <laughs> ñu investir seen liste législative déggoo kenn ku kaas wala kenn ku wax donc acceptel nañ ko mm-hmm. autorité boobu ah ñu pare ñu doon wax amoo leen projet mu ñëw ñu teg seen projet ba pare mu summi mbubbu état summi yéene ñëw nekkaat militant politique il vient il fait une communication ci jour boobu booy seet booy dañ naan ah Sonko génnagul dinañ ko xaar ba 6 heures du matin woowul benn télé daa dem toog ñi vidéo lañ def pëtëxal Feeling Dakar jël ko Sans Limites jël ko yeneen télé yëpp jël ko mu accès communication si ñetti plan premier plan il leur explique les enjeux ci législative yi pourquoi ñu war a dem législative donc dafa nekk koo xam ni mu ngi préparer une bataille politique mais en commandant chef il mobilise ses troupes mais aussi utiliser cette tribune pour fair passer sa com et dans sa com lan la wax mobilisation oui. meeting pourquoi dafa am message bu mu doon jàllale le message mooy doole ji ma amoon démb tey laa ko gën a am mhm. moment bi gars yi di kii il pose un acte léegi moo tax ma doon wax ñoom buggaan bi nga xam ne bu génnee midi ñu génn midi une minute bu defee Dakar Arena bu dee dëgg la dañoo war a xëy rek ñoom tamit ñu ne dañuy dem stade euh, Ablaye Wade par exemple wala ñu ne dañuy dem def grand théâtre donc mënuñu ko suivre ci rythme boobu parce que moom moo am cette capacité de mobilisation et li dans sa communication mooy euh, dafa am ñaari aspect quand il communique il sensibilise xam nga la mooy sensibiliser. maanaam nga wax ak nit ki ba mu déggal la mais après sensibiliser mu mobiliser ko. léegi nag fi extraordinaire mooy sur le le crowdfunding. oui crowdfunding mooy financement participatif bi ma koy njëkk a dégg boobu maa ngi nekk étudiant sama prof moo ma ko jàngaloon euh, sama prof Massamba Mbaye moom yoroon naa communication et en management euh, crowdfunding mooy financement participatif. mais c'est inédit dans l'histoire du Sénégal. Mhm. ñi fi nekk leader politique yëpp yow yaay ñoq sa poste def ci. mais Pastef dañu wax gars yi yéenay joxe. Mhm. Pastef dañu ñëw créer bracelet bind ci Pastef boo jëloon kaas bi nga bind ci Pastef nga dem jaay ko ñu jënd ko. donc c'est bon produit. donc en matière de marketing politique Sonko est en avance sur les autres Justement. et ici euh, paradigme bi mu renversé <laughs> mhm. parce que d'habitude le financement venait du haut vers le bas mhm. mais maintenant c'est à partir de, du bas vers l'organisation politique parce que c'est une organisation pyramidale ouais. et dans une organisation politique dafa am lu ñuy wax euh, vertical ak lu ñuy wax horizontal mais ici c'est à partir de la base vers le sommet maintenant le fait que Saa Wolof jël xaalisam def ko ci parti bi loolu xamalu muy firnde mhm. mooy kenn ëppalewu ma ci ci laa bokk mhm. beneen bi mooy li ñuy def gëm naa ko ñaar mooy man wóolu naa la parce que soo wóoluwul nit doo jël sa xaalis di ko fa def soo gëmul projet am doo ko fa def mais pour nit ki nga gëm ko wóolu ko dafa lay won lu tax moom su la wooyee nga wuyu ko xam nga mhm. kon euh, finalement euh, il il montre innovation politique oui. dans la vie en entreprise, dans tout ce qu'on fait dans la vie, si on n'a pas la capacité d'innover, mhm. on est appelé à disparaître. Maintenant, son cours dans l'arène politique, il a continué à montrer que véritablement, euh, challenger que nous ça veut dire demain, il y a nañ partie, une journée, une cotisation. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, si on regarde, nous cotiser ici par thème, l'opposition est venue pour dire. waxuñu cotiser leen ñu de. dañuy xëcc nit ñi ci beneen aspect. pour dire que waaye Sonko ci partem la woote. ñun fii lañ woote. donc euh, c'est ce que j'ai toujours dit depuis deux ans trois ans. Mhm. Euh, c'est un ouragan politique en fait. un ouragan c'est un vent très fort. Mhm. qui vient bousculer tout sur son passage aujourd'hui avec son show à l'américaine euh, bi nga xam ne moom moo am Stade Arena et quand tu imagines nga nar a jóge fii dem ba Dakar Arena passe. yendu ci xiif 10 heures ngay dugg yëkkati sa xaalis dagg ticket euh, genre boobu dafa nekk lu raar loolu li ñu ko doon gis ci tarixe rek lañ ko doon gis sëñ bi génn lii lañ soxla gaa yi ñaq léegi génne mais kon fii kon ngëm-ngëm bi dëgër na te les gens ont adhéré à ta vision politique et ça euh, il faut lui reconnaître cela et puis force am mhm. changé wul mobilisation bi li mu ci doon wane wane doole parce que politique rapport de force politique dafay baax yenn saa nga wane sa taxawaay moo tax yenn saa mbër yi mm. dañ leen di defal kii bi nu mu tudd. Euh, open press open press. waaw kii nag léegi nag deful open press kii la mu doon def. <laughs> wane dooleem la doon def. et que ñeneen ñi en réponse politique bu dee dëgg la. Mm-hmm. non bu soo ko nañ dem ñu woote doo dégg ku woote de. ok mais Cheikh Omar ah ak fi ñu toll ak li waa Bakel ak Matam dund ci contexte bi di Mumbaay aussi ñu bëri ñu ko ci xaw a ŋàññeek yooyu. mais non c'est c'est dañu nekk ci réew moo xam ni. yow yaa ngi nii waa Bakel li fa dal da laa teree nga dem xooli sa jawar wala nga lekk wala nga naan dama lay laaj. ah ah mais am na yoo xam c'est même pas logique yaa yaa Ousmane Sonko premier ministre. tey waa Bakel kan moo fa nekk ak ñoom. le président de la léegi président de la république ak Sonko kan moo téye réew mi. c'est le président. ah kon président na téye mi Sonko na dem mu la l'affaire politique. c'est aussi simple que ça et, pour d'ailleurs pourquoi les gens attaquent Sonko. oui dégg ñu attaqué Diomaye. non non il parle que Sonko. parce que Sonko c'est un excellent premier ministre man su ma doon wut premier da ngay yàlla nga am ku ni Sonko. parce que il te sert de bouclier. kenn du dal président ci moom la ñuy dal. bu xeex jotee moom mooy jiitu ci xeex bi dem xeex xeex bi te élection bi élection am la parce que moom moo nekk ca tête de liste ba on ne pas empêcher à une personne nga ne ko yor nga une organisation politique moom mu xool ban méthode de financement lay am am na yow léegi-léegi toogoo fi nit ne la euh, dimbali ma nangam wala sàngam mais nag am na lu gars yi di bind ci moom xaw ma si c'est pas mais en tout cas na envoyé numéro bi rek allez bi Sonko def dañ ko koy nangul mooy parti yi fi nekkoon Papa Diop moom moom bokk gis-gis mooy génnee xaalisam jënd essence def ko ci parti bi Ablaye moo moom moom parti moo ciy def Bougane moo yor mouvement am leer na mhm. Sonko dafa ne lu waaye am da ciy def ndax def gi dafay firnde sa bokk ci mbir mi ci laa bokk la tudd mhm. beneen bi gëm naa la beneen bi wóolu naa la le problème de Bakel est en train d'être réglé par le président de la République. le président de la République a plus de pouvoir que le premier ministre. donc am na yoo xamante ni ay waxu kii la quoi c'est-à-dire loo bañ bañ tubaab. Mm. du tax nga ne ko da ngaa ñuul kukk. boo contrer Sonko tamit nangul ko li ko yàlla may. loolu aussi c'est c'est c'est une évidence. ok ku mën nag léegi boo xëyee na nga woote ñu xool tamit parce que ñun man en tant que acteur boo xam ne je suis un observateur. oui j'ai besoin de savoir les forces et les présences demain. bugaan na woote. bugaan su wootee ma dem xool na bugaan lu mu am gannaaw suba Bart na woote c'est aussi simple jaru ko. ok xam naa ci kanam dañ ñëw euh, Saa Wolof parce que mu ci li nga xam ne mooy ndey mais pour euh, ñoom seen euh, collecte de fonds bi ñu doon def rien que trois jours ça tourne autour de cinq cent millions de francs. Ah, mais à collecte de fonds. sama copain Karim nee <laughs> kii bi kenn moomu ko non Karim entre nous c'est mon ami. et ku ma gëm la ku ma respecté la. Mhm. mais def na kii fa fa am na fu mu ci toll. am na ñu ko may am na ñu ko mayut. Pa Ablaye Touré mon jeune frère que j'aime bien que j'estime trop bien pour tout ce qu'il a fait pour le pays pour tous les sacrifices qu'il a fait euh, à l'université pour ses études xam nga ak li mu daj yëpp pourtant bi mu defee mais Sonko c'est une dimension. yàlla moo ko c'est-à-dire boo bëggee noppalu si àdduna ku nekk am na lu la yàlla jagleel. gis nga même ci mbalax mi nii sax. Youssou day woote fii Waly rek a ñemee woote à côté mais keneen du woote. Sonko c'est un phénomène politique mon gars je te dis demain dans les d'histoire politique dinañ jàngale